صبر بمزة الجنة ساتري رب البرية البدن ساتري رب البرية البدن أتتغاب من ظلمي بدن فديتني فديتني فديتني أبي بسر ولم زبزبان mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waaw ñoo ngi fii ci aéroport bu mila ñu gën koo xam ci Malpensa waaw dañoo nekkoon nag ci waajtaayu màggal gi ñu daje fi ay mbokki taalibe ñu leen doon laaj seen tolluwaay ci màggal gi waaw nan lañ ko waajale ñu daje suñ jëwriñ ñi wax sëriñ Modou Faye ak sëriñ Khadim Thiam ñu leen doon laaj seen tolluwaay ci màggal gi nan lañ ko dunde bisimilah sëñ Modou. man la Modou Faye euh, Touba Touré 18 Saba Milan ñu ngi leen ziar bu baax a baax xanaa kay ñu ko sëñ Pape waxee rek di jéem a dem Sénégal pour joxe ndigalal Serigne Touba donte foo nekk sax mën nga ko faa def waaye gën a jege gën a yee <laughs> comme moo ne bésam bi bésam la bis bi bésam la ñëwee nañ ko ci sant yàlla nañ ko ci sant la yàlla mu wax. moo tax wante lott nañ sax waaye ñu ciy jéem suñu kéem ci laay kàttan yi ñaan yàlla suñu borom cee dëppoo bu gërëm war Cheikh mu Ahmadou Bamba ñaanal ko kenn di tamit sëriñ ñi dafa xam sëriñ ñu yaakaar ne tey ki la ñu a jiite sax yàlla suñu borom ñu tamit ci yoon jàmm ñu leen ci jàmm yàlla sant nañ lool sant وجه النبي المنتقى المجمد أحسن من كل منير مكمل وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمدنا المختار نور ناسي مولده مساسه الخناسي نفى لخير مدعو الأنينا وخاد للقرآن والفنونا عادني إلى ربي وربي له مع الإله يسر خطي رسول الله